du ñu du ñu kii du ñu du ñu du ñu réew bu sérieux. ça te fera du bien. ça te fera du bien waaw ça me fait waaw. du ñu du ñu du ñu. duñu duñu li nga fee ci façon nit yi tàmm nañ ko léegi gis nañ leen. Ah. naan leen seen café naan leen seen ataaya mais kii mais alam amul. <laughs> arab arab du naan. arab du naan noo ko tuddee. Hmm? robb lan. robb lan la ko waaw robb ba ba ok. j'en étais où du coup. ci parrainage bi. <laughs> ci réew mu eh, eh. non non parce que xam nga lu tax parce en réalité euh, euh, moi, je pense que ni. Euh, euh, entre le pouvoir et et et et l'opposition en général euh, dafa c'est, c'est un jeu de dupe dañuy tegante xel waaye yàlla dafa def ni dafa am koo xam ne moom moo ŋànk nguur te il est un tout petit peu plus avantagé si je puis dire parce que tout simplement il a le contrôle de la justice il a le contrôle des institutions puisqu'il les maîtrise moom moo ko moo ko ŋànk Euh, ça fait que effectivement euh, am na ñoo xam ne dañu nekk en face aussi nee nañu n'importe comment euh, il faut que affaire yi jaxasoo. Mm-hmm. parce que bu fekkoon ni mais man honnêtement ñoom la opposition bi laa gën a mere parce que maa ngi koy wax sànq en antenne hmm. parce que parce que man li ma gisoon mooy dans des situations pareilles da ngeen di da ngeen di booloo def benn say li nga xam ne Ousmane Sonko da ko daan wax si njëlbeen xanaa léegi nag boo leen tolloo ci situation bi ngeen mën ko def définitivement parce que lu ne lu ne lu ne fang kenn du ko kenn du ko jeex mais en même temps ils vont se retrouver comme ça pour échanger ils vont ils vont ils vont voilà dañ dinañu dinañu communiquer dinañu jàkkaarloog Sénégal dinañu wax mais euh, mbir mi du euh, du dem fenn araam du du yegg fenn mooy li Abbas doon wax sànq mooy li wax rek du du yegg fenn parce que après le 20 vous auriez deux jours ou on aura deux jours yoo xam ne du am benn njëriñ. 60 personnes yooyu jóg taxaw di def 60 recours eh ben sa euh, ça ça ça ça servirait pas à grand chose parce que tout simplement du leen tere ñu arrêté mbir mi xam nga fan la ñuy mujjee ku nekk tas dem jàppale diw ñi nga xam ne ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kii bi comme ils avaient fait avec les Idrissa Seck et les autres. on se retrouve boppam lay jàppale. boppam lay jàppale tey mun na ko wax mais euh, après le 22. Euh, dem leen ngeen laaj ko kan lay jàppale wala entre le 22 et le 30 janvier ou 31 euh, ngeen xam dina leen wax leneen. yaa ngi dégg te boo leen ko ko tegalee dina la ne amul choix ki yu demee noonu mais ce serait dina am ko mu jàppale par force même bu fekkee ni euh, dina ko jàppale parce que dafa am avenir politique te am na euh, ay coalition yoo xam ne il faut mu dugg ci après pour mën a euh, survivre politiquement parce que il a besoin il est jeune il a besoin de de continuer à travailler ba pare bokk ci seen seen seen public bi man man man man man pour man lii yëpp coow gi yëpp amul benn njëriñ parce que vous allez voir ah après bu ñu demee nii après ngeen xool ku nekk day jéem a seet <laughs> feneen fu muy dem euh, langaamu alors que lii nii loolu ñuy nar a def noonu moo nañ ko organiser il y six mois il y a un an ci ginnaaw euh, ba nga xam ne da nga moom dinañ xam exactement ce qu'ils veulent parce que quand on veut changer un pays bu fekkee ni dafa am ay expérience yu mauvaise yoo xam ne gaañ koy dund ci régime Macky Sall am na yoo xam ne amoon na ci ci régime Abdoulaye Wade euh, quand même ngeen jóg rek ngeen da bëgg Sénégal il faut Sénégal bu bees surtout ceux qui euh, se réclament euh, du nouveau système mënoon nañu jéem a daje waxtaan quoi jiital mais yéen mosu leen laajte pourquoi gars yi ku si nekk dans un pays de dix-huit millions d'habitants muy am autant de candidats. mais mais mais franchement est-ce que loolu est-ce que xanaa man xanaa du da ngeen bëgg da ngeen bëgg changer réew mi kese xanaa da ngeen bëgg yi nga xam ne daf fi bonoon yëpp ngeen bëgg ko dindi waaye yéen doo leen ci toog ngeen waxtaan ci ci ci ngeen def benn say euh, euh, li nga xam ne parce que quand même au moins man mun naa leen jotal ni bëgg ngeen réew mi quand bu bëgg ngeen ko bëgg ngeen mbir yi changé te ngeen seen mbëggeel ci réew mi mu ëpp importance seen seen envie nekk président de la république donc doo leen seet li nga xam ne moom moo fi bonoon démb tey doog a ñëw ngeen ne lii dootu fi amati ba ilaa yow mi din parce que yéen koy wax chaque jour ngeen wax ko mais boo leen de boo leen décidé loolu ba déggoo ci ni lii dootu fi amati ngeen ne lii yooyu yëpp nag yooyu fi tegu nekk te te bugg leen mu amatu fi nan ngeen di def mu dañ te boo leen ko defee di ngeen teg un programme forcément moo doon conséquence te bu programme boobu amee ngeen jéem a seet léegi ci profil yi entre vous kan ngeen di jiital dem wax ak sénégalais yi def le tour du Sénégal pourquoi vous voulez tous être président de la République lan moo fi jar xëccoo bi xanaatu du da ngeen bëgg changer mbir yi moi je pense que ni euh, euh, c'est c'est c'est ay kii la ay euh, ay xam nga mais mais oui. mais mais li ñu mais. mais dajaloo lan da nga wax ne dañu waroon am benn candidat unique. autour de l'opposition mu fédéré mais mais du dañu bëgg changer. Ah. mais mais mais euh, wala wala dañu bëgg nekk président. parce que c'est différent entre en man ndax bokk nañu idéologie. mais je je pars du principe que fii xam nga ah, euh, Afrique en général mais Sénégal dëkk bu ñuy tabax. Euh, Aram dëkk boobu amul idéologie amul fa importance amul fa sens parce que tabax la ñuy wax. boo leen demee ba toll ci benn niveau de développement après idéologie yi moom mooy euh, guider les orientations mm. ba nga xam ne moo tax ngay gis ñii duñu d'accord parce que ñi dañu ne pour ñu gën a développer wala pour ñu gën a dëgëral suñu réew euh, ci euh, idéologie bii la ñuy dem wala yoon bi trajectoire idéologique bii la ñu jël ñeneen ñi wax leneen mais boobu fekk na dëkk bi toll na ci benn niveau de développement mais dëkk bu ñuy tabax idéologie du benn budul tabax ko nan la ñuy def ba les besoins primaires ci réew mi dëkk bi am ko maanaam yi ñu ni chaque jour santé bi lekkin bi autosuffisance alimentaire ou souveraineté alimentaire yu demee noonu pajin bi éducation yi yooyu nan la ñuy def ba mu am transparence nan la ñuy def ba dëkk bi am transparence ba xam ne kenn dootul jël li nga xam ne ñëpp ko moom di ko akimoo yooyu buñ ko dajalee ba pare ba mu wóor leen ci seen bopp ñu ne léegi pour ñu def ko lan la ñu war a mën a def pour loolu bés bu ñu téye réew mi mu nekk waaye léegi bu ñu si waxtaanee ba pare ñu ne léegi ci biir mbir mi kan la ñu war a jiital pour kooku mën a euh, euh, euh, def loolu kañ ko waaye dootuñu ko mayee ci doole bi nga xam ne moom la moom la président yi daan doon am. waa déet non amul non mosu am. non ana lu yoonu yokkute. non déet non non amul. ana yoonu yokkute moo tax ma ne la. Ah, ana la charte bi ñu tëraloon gis nga xoolal. y avait énormément de choses les mais mais yoonu yokkute xam nga yu bëri yu ñu tëraloon. xam nga grand en fait. moi je dis que on peut ku nekk emprunter sa chemin bu ñuy uti ji. mais en un moment donné il faut que ñu rationaliser les énergies foofu la ñu toll que opposition bi fii nii ñu toll ñu rationaliser les énergies. Aliou Aliou voilà non non au départ non non bokk ñu non Aliou il parle d'au départ kiif dafay wax ni comme te Aliou loolu la wax ah. voilà xam nga tout au début tout au début. c'est-à-dire rationaliser c'est-à-dire peut-être bon ku nekk ak ni nga koy comprendre. voilà mais tout au début ñoom ñëpp il devait faire un bloc. très bien. un bloc boo xamante ni le premier combat moo doon on va éliminer Macky Sall ça ça devait être le premier combat ouais. mais xoolal bi muy nekk premier combat pourtant tout le monde c'était truc wooy Macky moom doo bokk Macky moom du bokk il n'est pas question ouais. mais bi Macky ne d'accord du ma bokk mais ki nga xamante ni c'est lui qui harangue les moom la sénégalais yi di topp moom la ñuy bàyyi xel moom la ñuy déglu dama koy jël tëj qu'est-ce que les autres ont fait Aliou a raison. oui quest que les autres ont fait dañ dem ne non ñun suñu yoon newu ci affaire wu mais comme loolu rattrapé na leen nag ba yegg si fii. Ah. nañ ko def loolu la Abass di wax. ñëw rek ne ma bokk. léegi soo du bokk ñëpp seetaan ko ci nag tamit léegi loolu noonu dafay lu leen dalal moom li koy firnde. bu sa sikkinu morom di lakk da ngay uti loo ko fayee boo bàyyee rek ne du ma du làkk sama bos bis bu jëlee sa bos moom itamit day taxaw seetaan la rek. <laughs> est-ce qu'ils déjà réfléchi ci li ngeen di wax ni xam nga yéen li ñuy wax mooy troisième candidature ci boobu gisoon nañ leen ñu ànd. mais l'après troisième candidature bu ñu waxatul loolu ndax réfléchiroon nañ ci li ngay wax nii maanaam am une vision boo xam ni ñoo bokk ci li ñu jëm bu dee loolu xalaatuñ ci woon normal na après bu ñu paree ku nekk jaaraat mais mais mais xam nga xam nga euh, aram waruñu sax imaginer ni ñoom ñu bëgg nekk président de la république xalaatuñ ko il y un an et demi deux ans mais lii man dama leen doon ko doon wax ci télé bi. Mm. mais pourquoi defuñu ko moo boobu parce que talluñu ko woon parce que en réalité c'est xam nga maa ngi laaj sànq benn mbir dama ne entre euh, est-ce que au Sénégal pour euh, am na une différence entre vouloir être président de la République ak vouloir changer les choses. Mm-hmm. parce que c'est différent. parce que on peut avoir vachement envie d'être président de la République sans forcément am envie changer les choses parce que bu fekkee ni on a envie de changer fondamentalement les choses euh, président de la République warul la warul la warul sonal noonu ba mu war leen jaral ngeen di dem yéen ku nekk parce que bu fekkee ni réew mi kese moom moo leen moo leen intéressé réew mi kese ngeen bëgg mbir yi bon yi fi daan am di sànq doomu sénégalais ba situation euh, Sénégal économique bi tollu fii euh, euh, ndool bi tollu fii ngeen ne loolu da ngeen ko bëgg a dindi mais war ngeen mën a toog waxtaan boo leen nan ngeen koy def ba ku nekk indi xam-xamam ba ngeen toog ba leer ngeen xaatim ko ci biir kayit ba mu leer ci seen bopp ba ngeen d'accord ne lii buñ ko defee réew mi dina ki te nii lañ ko nar a defee ngeen kañ mbir mi protéger le programme ngeen léegi nii nan lañ koy defee lan lañ koy defee mooy lan mooy il faut bien. Euh, tey jii nii bu ñu doon tàllal benn sàkket sax war ko war a protéger war a def benn nga jël sàkket bu kii nii rek nga bëgg ko taxawal nga ne il faut sàkket mu taxaw parce que ko bëgg a def barrière pour que ngelaw li bañ a ñëw di di di dóor euh, il faut ngeen protéger wu contre mais boo leen di ko taxaw tey jii nii mais dina am koo xam ne ñun bu fekkee ñu ñoo ko war a defar dina am au moins kenn koo xam ne mooy xaw a nekk maître dëgg moo naan moo jox ma jox ma pont bi ne ko jox ma wala kii ne ko dama gasal ma fii keneen appel bi mais au final di ngeen gis ni sàkkat après day taxaw vous l'avez fait ensemble mais am na koo xam ne moo doon wax mbir mi moo doon moo doon orienté donc moi je pense que ni ce qui est important ou ce qui devait être important pour ces gens man je vous assure d'une chose ces gens là moi je veux pas dire que je les déteste

sàq un peu parce que dinañ xalaat ni bon. leneen bon tant pis bàyyi naa leen rek yàlla. bàyyi naa leen rek yàlla quoi. Ah, <laughs> ah, parce que même bu doon day am sax xam naa ne du am sa jaww. non grade grade bi muy soog a yegg il était souffrant il était souffrant bi muy ah, soog a agsi. donc ma recommandé ko mu jënd volte-face. voilà volte-face comme son nom l'indique volte-face. fas moom ñëpp xam nañu voilà bopp bi da doon métti. waaw léegi pour sénégalais yi. Euh, euh, euh, volte-face benn benn kii la bu ma ah bu ma sama waa ji jox. Aliou jërëjëf efficace la ñu ngi def ñu ngi def suñu <laughs> ñi ñi kon war nañoo fay xanaa <laughs> non pour dire rek pour juste conclure que ni franchement moi moi je man man man gëmuma man man ñii man non man gëmuma leen wallaahi gëmuma leen xam nga lu tax gëmuma leen parce que gars ah, dañu dañu bëgg bokk rek dañu bëgg nekk nekk ci nguur ils ont pas envie de changer les choses parce que quand on veut changer mais xam nañ nan la ñuy def pour tabax réew yéen xam ngeen réew mi Sénégal pour mu taxaw nan ngeen war a def vous le savez très bien da ngeen di sonal seen bopp kenn moo mën a nekk président la république ngeen wax ko doo leen mës dégg ñu ne dañuy changer dañuy wàññile les prérogatives présidentielles dégg ko fi président dafa am doole nii parce que mais bu ñu ko wàññoon kon xëccoo bi nii du am parce que boo nekkee président axam c'est fini pendant juróomi at yow yaay buum yaay buum yi nekkal président nga ko yow kilifa ba xam yow justice def légalement nag légalement hmm. yow du bah oui bah oui boo contrôler garde des sceaux garde des sceaux contrôler le parquet mais yow nga nga gérer euh, euh, kii wu magistrature bi. qu'est-ce que tu veux mais lan nga bëgg ci yow leneen. oui yow juge yow sa gars ñoo leen di sànni fu leen neex. léegi orienté fu leen neex. mais légalement. mais kon nag. mais mais loolu laay expliqué nii mais dama ne dama ne xoolal bu boobaa bu boobaa sax. légalement man dinaa la critiquer ba sa mandat jeex. mais man mhm. waaw waaw waaw. pouvoir. waaw euh, du président de la République. non mais man si wàññi ses pouvoirs xam nga man xam nga man son problème su ko wax. d'abord état non non da nga ne da nga ne non non non mais mais euh, euh, xel mooy dem présidence. du du waay cooki parce que gis nga gars yi après dañ lay fi xooj. fii lay lay taxaw lay lay xooj bàyyi taxaw taxaw jàll nekk si leneen alors que affaire bi maayeen la woon. ci benn côté. mais Aliou Aliou Aliou que je ne connais pas mais je l'écoute. Aliou mais Aliou ba démb yaa ko doon wax de nga ne xooj nañu mais Diomaye jàll na. ah léegi xooj Diomaye du dem. Euh, non je vous assure. pas pour quel wax nii. Euh, dem parce que xam fan lay gën a yóbbu. a yóbbu. Ah. mooy Pastef bi ñu di suul. mais Pastef bi ñu di suul ndax waxuñ ko Sonko. ah non lu ñu taaj ci Sonko yëpp balaa caag bu doon bu doon loolu day day éliminer candidature waaw loolu laa wax bu doon bu doon Pastef bi ñu dissoudre day éliminer candidature coono bi ñu daj ci Sonko boobu ba léegi lan moo taxoon gënul woon yomb rek ñu ne ko dissoudre nañ sa parti doo bokk mais gis nga fi contumace gis nga fi xeetu procédure judiciaire pour l'éliminer finalement ñu daanu ci attestation bu doon dissolution parti day éliminer duñ co mais comment c'est-à-dire xam nga xam mais mooy wax. wa mais constitutionnel bu wax day wax lu légal xanaa. day wax lu conforme au texte. ban texte moom moo ne bu ñu dissoudre sa parti nit ñi ci nekk dootuñu amati. benn droit xam nga fan lañ koy defee. loolu fu am sama xalaat. waaw fu mu am. bon ñu dissoudre sa parti je veux pas euh, pour pour wax loo xam ne euh, parce que man sama yoon nekku ci. mais man sama xalaat rek laay wax. sans être sûr à 100 pour cent. waaw mais je mais gis nga parti Mm-hmm. boo dissoutee parti mm-hmm. bu fekkee ne ñooñu dañuy génn. Mm-hmm. dem def leneen. ñi nga xam ne ñoom ñoo doon euh, maître d'œuvre parti. parti bi. waaw ah. ñoo ñoo ko ñoo ñoo nekkoon ca kaw. bu fekkee ne ñoom dañuy dugg dem feneen. kon dissolution amul njëriñ. amul njëriñ. déglu ma rek de dissolution moo tax man comme li ma koy commencé. parce que solution amul njëriñ parce que da nga rey une personnalité juridique Pastef mais teewut nit ñi fa nekk nekk ay nit. non logique laa yor. waaw ah. amul njëriñ. Hmm. ci kaw peut-être. Hmm. dissolution hmm. waaye dès l'instant dissolution am na. ñi nekk ci biir. Mhm. forcément ñooñu mënatuñu def leneen. kon léegi bala Moussa Fofana mënatul doon candidat ci réew mi abadan dayman man dama gëm ni ah. mais loolu mooy la dama xaar leen bés bu bés bu bés bu nekkee nag nañ ñëwaat toogaat fii ngeen wax Aliou Sow waxoon na ko non dafa. bés bu loolu amee non Aliou fi mu ko parié da nga a ne abadan dayman sëñ Cheikh Thioro mënatul doon candidat. mën fi mu teg bi fi nga teg sa pari bi c'est clair. Mhm. ci maa tey Bassirou Diomaye Faye fii laa jëm